ilaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Mustafa ku ne xam ci digganteem ak nasaraan bi ba ci dëkk bii tey yàlla boroomam feye ko fi lii mu ko fi fayee kon nun murit yi amoon na lu dul sant sëriñ Touba fu nu rek waaye di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne lii lépp moo ko waral ndax boo wanewul woon Serigne bi ba ñu xam ne Serigne bi mu ngi nii yor lii mu yor dana ñëw ba dem. te duñu ci jariñoo kon nag moo ngi sant ñëpp ci ñi taxawoon liggéey bi Alaaji Mbàkke yu fay ak ñi mu ko bokkaloon di ñaanal it Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ni ca tàmbalik liggéey ba ba fi mu ne moom la ko kilifaam yi mu fi yi fi woto tegoon liggéey bi ci loxoom pour ko saytu loo moom itam lañ ko doon def loolu lépp def na ko nañ ko bëggee woon ba mu yegg tey jii yàlla ak maamam ak jërëjëfam tax mu yegg ci loxoom ba mu di ko inauguré kon nag noo ngi sant sëñ bi di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall te donga itam yàlla yàggal leen fi te wéral leen te dolli leen i xéewal ndax bëgguñu loolul kat lu ñu liggéeyal seriñ bi kon nag luñ leen di ñaanal rek mooy seen yéene ci sëriñ bi yàlla nañu ko mën a def ba mu yegg lépp ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall dañ koo tuddee Cheikh Ibrahima dara jaale ko ko loolu euh, mënta ñàkk ci yoon wi loolu mënta ñàkk ci yoon wi ndax bu gisee jumaa jee nekk kenn mënu koo tudd te tuddul Cheikh Ibra ndax dafa mel ni carrière bi ñu ko doon bi ñu ko doon liggéeyee Cheikh Ibra ko daan gase ca ndokk ñu di ko yenu booba ñi ami fas di ko ci teg muy dox ba mel ne tey mu mel kon bu ñu tuddee bis bii tey fii Cheikh Ibra bis ci ci ci ci ci ubbiteel jubaay ji loolu lu war a man lu war a mën a nekk la loolu daal xel la itam te itam loolu murit yëpp rafetlu la ndax bisub Seex Ibra boo xam ne dañ ko tuddee moom ci ci yoonu murit loolu murit yëpp koy rafetlu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi ko xalaat nag xam naa ni borom yi xalaat la ñu ndax xalaat lii yi ñu def ba seet bis ñu ne bii bis dañ koy dara jaali Seex Ibra Fall loolu ki ko def ko abi xalaat la waaye yàlla ah, bàkki jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la waaw jàmbaar la waaw noonu dañu ciy bég rek nun ñii tam noo ngi bég di ñaan yàlla mu dolli wéral te yàggal nu fi noog dong yëpp ndax tàmbali liggéey bii dañu cee ñëw sëriñ bi danoo boole ak alaaji baare da ko ne wutal ñoo ma booleel mu ñu ànd ak man kon loolu mooy wane rek ni liggéey bu sëriñ Touba di liggéey bu ne rek Cheikh Ibra am na ca cër nu ànd moom ak sëriñ Asan ak sëñ daali nu ñëw fi ak alaaji baara ak président euh, Ablaye Wade keroog daanaka mel na ne mel na ne keroog moo doon tegu xeer wi nu ànd ak moom ci kon nag bu nu àndaateeg sëñ Modou Mountakha ñëw fii ci bis bi ñu am bis boobu dañ koo dara jaale Cheikh Ibra suñu xol da ciy sedd guy di ñaan rek lii daal moom xaw ma lu ma leen di wax rek loolu xanaa di ñaanal murid yi rek ak di ñaanal sëriñ bi yàlla wéral ko te yàggal ko fi ci sunu kanam te nu ànd ak moom nag lii mu bëgg a liggéeyal maamam lépp mu liggéeyal ko ko te nu ànd ko moom ci dara jël maam Cheikh Ibra jërë ngeen jëf ilaha illallah la ilaha illallah faal faal la ilaha illallah la ilaha illallah faal la ilaha illallah لا إله إلا الله فالجغ لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالجغ